am mbégte ànd ak yéen fii ci euh, Dakar nag tey nag ñu ngi fii ci Tëngéej ci seen émission bi leen di wax feeñ ñu war a waxtaanee ba tey élection locale parce que boo seetloo boobu ba tey opposition bi ñu ngi doon taxawal taxawu nguur gi pour ñu organiser élection locale yi euh, bañ ko organiser nag dañoo seetlu ne euh, am na ay euh, kii yoo xamante ne politiciens yoo xamante ne dañ leen indi ay problème ku ci mel ni Barthélémy Dias dañoo xaar bañ ne mooy candidat wu ñu sulliwaat affaire histoire bi mu amoon ak Ndiaga Diop Bougane Gueye Dany tamit boo seetloo dañu rejeté candidature am tey nag ñu ñëw fii ci Tëngéej laaj askan wi nan lañu ñu gisee yooyu information ak euh, li xew. tonton nuyu nañ la. maa nuyu. am mbégte ànd ak yow fii ci Dakar Net. Euh, di la sant. waaw mhm. waay ak seen wàccuwaay. tey nag euh, dañu ñëwoon laaj la euh, affaire élection locale yi fa fële ca mairie de Dakar dafa tàng parce que Barthélémy Dias dañoo xaar ma mu déposé ba pare ñu woo ko indiwaat histoire am ak euh, bi mu amoon ca mairie ba diggante Ndiaga Diop li nga xam ne da koy empêché mu mu nekk candidat ci mairie de Dakar bi ñu lay laaj lu sa xalaat. waaw mais xam nga élection toujours c'est comme ça élection avant les élections bon de métti quoi bon parce que gis nga Sénégal. dañu war a nekk si jàmm gis nga kuy dem ba rey nit kooku si yoon dafa war a écarter sax gouvernement wax sama yi xam nga ñun ñëpp on de des musulmans bu ñuy jël dañuy dañuy gis koo xam ne kii yërëm na sénégalais yi ñu jël ko mais du ñu jël n'importe quiconque ah ñëw na ñu ngi koy teg suñu réew. waaw tonton ñoom affaire yi moom dañ ko bàyyi woon mënuñu xaar ba élection locale yi ñëw moom mu déposé pour mairie de Dakar ñu koy sulliwaat. ah ah mais parce que euh, xam nga dossier dossier la. dossier man nga toog sax ba at bu waree génn day génn bu waree génn dafay génn quoi il n'en est pas question. est-ce euh, nguur gi ñoom ñoo ko tey faqatal. non nguur gi teyuñu ko vraiment nguur gi teyuñu ko quoi ñoom lu ñu wax rek ñu ne nguur gi nguur gi nguur gi mais nguur gi n'a rien fait nguur gi liggéeyam lay topp xam nga nguur gi liggéeyam lay topp parce que gis nga fi jàmm ak salaam moom la ñëpp bëgg quoi même le président de la république loolu la bëgg tu sais ah mais dañ ko toppul rek. mais buñ ko toppoon dina liggéey réew mi comme il le faut. kon daal yow li mu ñu ko def ni yoon la. mais yoon la yoon la yoon la yoon la effectivement. Mais pourquoi prévenir uñ ko avant muy def euh, di def affaire déposition. pour mu xam boppam tamit. waaw mais non c'est parce que mi ngi doog a génn moo tax xam nga dossier bu nekk ak moment bi mu war a génne ah c'est ça le problème dossier bu nekk ak moment bi mu war a génne ah mais loolu la sincèrement. Euh, loolu la daal en tamit fàqatal lay lay lay lay gën a nduru. parce tamit tonton xaar ba élection locale yi ñëw. moom mu def listam ñu déposé. dossier bu nekk. ak moment bi mu war a génnee. dossier bu nekk ak moment bu mu war a génne rek. c' est pas le président euh, mais le juge ah mais c' le juge qui qui a sorti ça mais c' pas le président Macky. daal kon yoon la pour li ñu def nii. effectivement c' est très normal c' est très normal xam nga affaire u réewande yooyu moo baaxul si réew. ah comme le cas de Barthélemy bi nga koy wax ñun ñëpp ñoo yem si réew mi kenn gënul kenn tu sais y a de yoo xam ne di ko tontoo nit di bon di critiquer nit si noo xam ne kii bon defu dara ak yooyu bon tu veux critiquer uniquement pour jéem ko yàqal xam nga nit kuy liggéey nga ñëw di ko yàqal mais euh, mais loolu yow c'est autre chose vraiment loolu yow du du yow defar ça veut dire que moom bu ñëwee moom bu ñëwoon tey supposons comment il va faire comment il va faire ba Bignane mu war a xam kan ah Ndiaga Diop comment il va faire ah mais kooku si nga des gens comme ça faut pas les écouter sax quoi en quelque sorte quoi. mais pourtant tonton ñoom ñi ngi wax ne mairie bi nga xamante ne moom foofu la nekk dafa liggéey dafa wane boppam carrément moo tax nag ñoom ñu ñeme ko pour euh, kii ko ci mairie de Dakar. waaw mais d' accord d' accord mi ngi d' accord mi ngi liggéey mais booy liggéey toppal sa liggéey. mais faut pas ngeen tëb di critiquer nit di wax nit loo xam ne c'est pas normal il faut respecter les gens nous tous on est des musulmans il faut respecter les gens et, et de travailler c'est ça le problème mais Macky Sall actuellement nii li mu liggéey ci réew mi mais kenn xamul nu mu mel parce que ñoom dañuy liggéey te duñu wax mais bu ñu liggéey di wax ne lii laa liggéey ak li ak lii ak lii ah mais bon vraiment di nga xam ne Macky Sall il a travaillé c'est ça le problème. ñu merci jërëjëf. merci beaucoup ayca mu ngi noonu ba tey rek yéen a ngi seen biir émission wax feeñ wax feeñ nag nii lay demee saa su nekk génnaguñu fi nga xamante ne mooy rond-point nekk ci duwaanu Tëngéej ah tey fii lañ wàcc si ah waaye na ngeen ànd ak xale bu takku tilimut bi set wecc saf sapa ngalam l'enfant série de Mbour nee naa la man damay def la ma saf ak la ma neex damay ñëw dindi seen stress fekk liy metti ci yéen ma daal di koy effacer sëñ bi nuyu naa la fay naa la bu baax Sonas. maa ngi lay kontaanee di la jaajëfal tur bi naka la. Xaasim laa tudd ñu ngi may woowee oustaz. waaw oustaz waaw loolu man di dama neex. Eh, noonu la fa demee noonu la fa demee nag. oustaz nga amoon quelques questions yoo xamante ni si nii dañ la ko bëggoon laaj ñu daal ciy àndandoo waxtaanoo ci nit ñi ñuy seetaan tam di ci bàyyi xel ñu bëggoon la laaj li nga xamante ni si nii moo lëmbe Sénégal ñu gis xale yi réseau yi léegi yàkkante bi ah jël vidéo jàmbur yi di ko envoyé ay nit tey da ngay wax ak sa kóllëre wax ak moom tënk ba nga foog ne fa lay yem mu daal di koy génne tasaare ko loolu lan nga ci wax xale yi des fois ñu gis tamit xale yi di def loo xamante ni si nii débat euh, du nekkul lu rafet daal ñu jël ko di ko dugal ci vidéo yi di ko yi di xam nga loolu mu nekk daal nit ñi lu ñuy ñaaw yow la nga ciy wax xale yi. loolu moom li ma si maanaam du man du cadre boobu laa ñëw mais li ma li ma si wax si loolu noonu eh, rafetul ndax nit da koy ormal surtout maanaam sa mbokku jullit surtout maanaam ki nga xam te ne ki nga asso maanaam ngeen mbokk dëkk bokk lépp kooku moom ko war a suturaal eh, mais cadre boobu noonu man wax maanaam si li gën a yëngu laay laay gën a wax maanaam si affaire euh, ñuy dawal jakarta wala ñuy dawal leneen man maa ngi leen di remercier nag bu baax. ñun dégg nañ ci yow. maa ok ok kon maa ngi nuyu ñëpp. maa ngi nuyu sama mbokku ndekandoo yëpp maanaam eh, dawalkat Jakarta yi dawalkat cek-cek yi fii ba Dakar ba Mbour ba. waaw Fouta nag doo leen nuyu ba Fouta ba Kolda ñëpp ngi leen di nuyu. Eh, maa ngi leen di nuyu di leen di leen remercier tamit di leen wax tamit nañu gën a courageux wu te Sonas eh, ñun dañoo kontaan si yéen surtout maanaam seen site bi kontaan si yéen bu baax a baax ndax buñ saa bu ñu amee soxla da ngay ñëw ñu waxtaan ak yéen ngeen tasaar ñu ko si dëkk ñëpp gis ko kon ñu ngi di gërëm ñu ngi di ñaanal yàlla yàlla seen télé di gën a kawe ci kaw incha doon télé bu ngand ci biir Sénégal dem dem ba nekk TV5 wala bu raw boobu sax waaw dégg loolu loolu foog na ba tey rek ba tey taalibe Cheikh mu amaat beneen question bu ma lay laaj muy ki nga xamante ne mooy Bougane Gueye Dany gisoon nañ dafa posé candidat pour bëgg bokk ci élection maire pour laaj maire yi léegi nag dañ ko effacé man surtout maanaam man du ma si dugg si débat boobu lu tax loolu man du ma sénégalais à am jàmm ndax Sénégal bu amee jàmm ñun dañu am jàmm fii ñu amee suñu lépp fii la suñu teranga fii la nekkee daanaka ñun ay guinéen lañ mais ñu màggee mais kon dañu ñaan yàlla banaa balaa keneen di am jàmm na Sénégal am jàmm loolu moom am na mais suñu dëkk jakarta maa ni dama leen di ñaanal jël courage gars ndax gars liggéey moo tax ñu te en fait jakartamaan yi am na ñenn ñi nga ay machine jàmm la yoon nañ ba ñu ngi yor seen machine te en fait am na lu si nekkee dañoo am image bi nga xamante ne gars yi ñaaw njot maanaam ñu leen di ay agressé wala lañ déedéet amul dañoo war a xam ne jakartamaan yi dañoo jóg pour liggéey comme ñëpp si dëkk bi lañ bokk te en fait sonas tamit maa la benn ñi gis ñëpp ñu dewal fii ni jakarta benn dañ doon jàng voilà ñun ñëpp dañoo jàng ba am na ñenn ñi xam dañoo jàng ba ar seen licence ñu ngi fi di dawal Jakarta ayca mu ngi noonu wax ji am na solo lool ñu ngi koy ñu ngi koy kontaane di ko mhm. jaajëfal bu baax a baax a baax di leen wax ni nag ay ndaw ndal ay jeune lañ dañoo bëgg seen liggéey gëm seen bopp sàcc ñu tuxuñu dóor waar rek a leen ñor nañ leen jàppale si dëkk bi lañ bokk sa kàddu gu mujj léegi dëxin bopp laa bëgg nga waxal ma ko ci français dëxin bopp xam nga yéen pëli da ngeen di bëgg dëxin ñàngat nag rek ngeen foog ni mooy lekk waxal ma dëxin bopp bon ma waxoon sax mafia ko à la rigueur mais man dëxin non non tey moom dëxin nga may wax waaw dëxin mu ngi noonu dëxin dëxin yow dëxin seen bopp donc daxin ça veut dire que daxin ay <laughs> jama ngi noonu nee na dëxin ça veut dire que ah, lii lañ leen indi nag seen biir émission wax feeñoo ñu ngi woon tey fii ci rond-point HLM saa su nekk rek nii lay demee dañuy daal di ànd ak yéen rek dem ci beneen côté ndax nee naa leen dañuy soog a door demaguñu sax defaguñu dara waxaguñu dara Largo muy neex su baaxee ñu dem ah. ayca mu ngi noonu ba tey rek amati naa keneen nag koo xamante ni moo waxtaanee ak moom ci li nga xamante ni mooy suñu euh, li nga xamante ni suñuy laaj suñuy laaj nag dañ koy laaj ñi nga xamante ni ñooy ndaw yi ñu fekk si euh, fii ci rond-point euh, HLM sëñ bi nuyu naa la. waaw soxna si ñu ngi lay fay. maa ngi lay kontaanee di la jaajëfal tur bi naka la. Ousseynou Sène. Ousseynou tey yaa ngi fii nii en direct sur Dakar Net lan ngay wax sa mbokku naataango yi nga xamante ni nii ñoom ngay liggéeyandool nuyu leen ba pare waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu ñëpp képp koo xam si rek maa ngi waarandoo ak yow maa ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal waaw. Ousseynou tey nag ñu indi woon ay question yu am solo fa seen kook ko bokk ak yéen ndax nee naa ko ñun eh, seen i yitte eh, ci la ñuy dox li ngeen bëgg ci la ñuy nekk ba di jot ñu daal di dem tëddi Ousseynou tey ñu gis ni réew mi jaxasoo na dëkk bi tas na dangay wax ak ma ma Masamba dem wax ko Mademba Mademba dem wax ko Masamba léegi nag loolu yow lan nga ciy wax xale ñu gis ni réseau yu toj tos toj tas na yàkkante bi ak waxante yu ñaaw yi xasante yi ŋàññante ak sosolaate yi lan nga ciy wax waaw man euh, li ma leen di conseillé muy génération bu mujj bi euh, ñu yamale bëgg-bëgg yi parce que lu ci bari bëgg-bëgg yi moo koy waral mooy waral ñuy def naka sudul noonu xam euh, par des fois nga seen koo xam si benn samba booy jóge fee diglu la iPhone xam la ñu la vidéo la filmé après mu yàq la xala après mooy loolu daal dëkk bi daal jaxasoo na. léegi nag ñu fas yéene laaj beneen question bi mooy li nga xamante ni si nii mooy Bougane Gueye dañ ko gisoon mu posé candidat pour bokk ci élection maire yi mais dañu gis ni léegi bokkutu ji dañ ko supprimer loolu yow loolu euh, dëkk bi léegi kumba am day la ak kumba amul day wala lan moo ci sa xalaat. ah loolu moom euh, vraiment doy na waar parce que Bougane gis nañ ni yàgg nañ ko xoqatal ci yu mel noonu depuis élection présidentielle 2019 ñu ngi koy def lu mel noonu Bougane ngir yàlla nan ko bàyyi citoyen la comme ñëpp ci Sénégal. te Sénégal ñun ñëpp nan ñoo ko bokk du dëgg nan ko rafetal mu rafet waaw. Mm. yow daal lool nga gis ñu naajsal ko mu naaj. waaw ñu naajsal ko mu naaj ñëpp am jàmm waaw dëkk bi ñëpp féex. Barthélémy Dias tam gisoon nañ ni moom tamit dafa posé woon euh, candidat waaye dañu gis ne euh, bi élection yi commencé wàcc ñu koy fësee ne euh, commencé pour def ko ci lañ ko convoqué waat indil ko sulul ko yoo xamante ni si nii yàggoona na tamit lan nga ci lan nga. waaw mooy lima la wax sànq rek xam nga Sénégal moom moo nekk réew moo xam si kumba am nday la ak kumba amul nday gis na ni batterie milliage ci dëgg rek lay dox kenn xamewu ko ci lenn luy caaxaan te nekk na nit koo xam si daal man gis naa ni vrai patriote la te ku gëm réewam la toujours ci dëgg lay xeex waaw nan koo bàyyi may ko aafiya du dëgg mu mën a waaw mu doxal euh, papa nuyu nañ la euh, am mbégte fekk la fii ci dëgg waaw c'est ça merci waaw tey nag ñu ñëw pour laaj la lan mooy sa xalaat ci euh, élection locale yi fële ca mairie de Dakar tàng na loolu ndax boo seetloo Barthélémy Dias boobu ba tey mu ngi doon rayante euh, pour nekk leader foofu noonu ci parteem waaw mais ba mu defee listam dañoo seetlu ne ci lañ ko woo convoqué ko ci histoire bi nga xamante ne moo xewoon foofu ca ca ca mairie am ci ray bi mu rayoon Ndiaga Diop ñu lay laaj lan nga ci xalaat. waaw c'est vrai que euh, élection locale xam naa lool parce que vraiment enjeu politique bu bu c'est un enjeu politique bon c'est effectivement euh, Barthélémy Diaz il a liggéey na euh, mairie mairie kii euh, si. mairie Mermoz il a fait un travail remarquable moo tax il a moo tax mu mu wóolu dooleem ne day briguer mairie Dakar mais le fait vraiment on a constaté ñëpp a gis ne le bi mu déposé sa candidature la ñu sulli mboot fini le, le problème judiciaire avec euh, l'affaire la, Diop. Moi, je pense que affaire du Yon, yon parce que vraiment, il n'est pas normal quand même que nous, euh, nous, handicapés, nous, nous, nous, qui, nous compromettre la carrière de l'idée politique. Wow. Barthélemy Diaz veut briguer la mairie de Dakar, ce pas normal que nous soulignions. Pourquoi attendre ce moment précis Est-ce que nous avons donné notre titre Depuis lors, nous sommes actuellement à deux mois des élections, ils veulent freiner ses papa est-ce que tout tamit euh, euh, moom euh, preuve yi mu wane ci mairéem tam hmm. ñëpp gis nañ ko loolu moo tax ñu xaw ko ragal moo tax ñu indiwaat histoire waaw waaw bien sûr bien sûr Barthélémy Dias la fait c'est vraiment parce que liggéey bu mu def à Mermoz ñëpp gis nañ ko ñëpp gis nañ ko moo tax effectivement c'est un candidat potentiel et régime en place bi xam nañ ko actuellement c'est un candidat sérieux pour la mairie de Dakar moo tax ils feront tout pour briser son élan et ce serait dommage. seetlu nañ tamit Bougane Gueye Dany dafa déposé candidature ñu daal koy rejeté. waaw ah, ah, c'est dommage c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage et lu ci doy waar bon on rejette des candidatures et bi ñu nee bon toutes les listes de la coalition Benno Bokk Ya Benno Bokk Yaakaar euh, jàll nañ ça pose à dire que euh, Benno Bokk Yaakaar ils ont des des gens suffisamment capables pour defar ay yu baax alors de l'autre non c'est pas possible. tamit donc tamit Sall moom xam nga moom da leen a gën foor ci politique bi moo tax parce que moom stratégie yi yëpp euh, daf daf ko def te te dafa jàll tamit. waaw c'est vrai mais il faudrait que le jeu soit transparent quand même il faudrait que euh, ñëpp daal xam ne que vraiment c'est des élections majeures il faut qu'on joue franc jeu et que évidemment que les élections soient transparentes et que le maire gagne loolu la ñu bëgg mais vraiment c'est c'est croc en jambe yi rafetul rafetu stade na loolu pas la démocratie en ah, ce vingt et unième siècle lii waruloon am bu ngi léegi nag kàddu gu mujj gi ñu jëm ci kàllaamay olof ñu lay laaj nag dëxin bopp suñu bëggoon nga waxal ñu ko français dëxin bopp non question boobu moom est-ce que doo ma ko jéggal rek. non du ma ko jéggal waxee neex. parce que ko waxee baax na. dëxin bopp moom man dëxin bopp rek laa xam. dëxin bopp nga ci xam dëxin bopp loolu la sa monsieur. waaw mënu ma ko wax en français moom franchement du ma la ko nëbb. ay <laughs> jo mu ngi ba mu yëngatu lii lañ leen jox nag rendez-vous dig daje beneen yoon beneen émission ci wax feeñ let's ba beneen yoon